moom chroniqueur bi fara fa feccewal seen TV daal di wuyu turu Kader chroniqueur bi daal mën nañ ne ginnaaw xamee fësal nañ ay xibaar ni tey war na dem wuy fi nga xam ni moo di cybercriminalité ginnaaw bu mu ay kàddu jëmee ko ci gaal googu nga xam ni nekkoon na ci waaxu Sénégal gile ba lenn ci ñi nga xam ne ñaa fàddu nekk ci biir boobu la gaal maanaam ñi nga xam ne ñaa gaañu loolee sax tax na moom Fadel moom Kader daal di woon fa daal di xamle ci chronique bi nga xam ne dana ko defee foofee ci Grand Gueule émission boobu la ci des médias daal di xamle bu baax a baax ginnaaw bi nga xamee ñi nga xam ne ñoo di suñu chef policiers yi la war nañu ubbi ab l'enquête rawat na ñi nga xam ni ñoom la ñuy wax police scientifique ndax kat nekk na mbir bi nga xam ni mën nañ nee nekkatul benn yoon li nga xam ni moo di dem gaal dikk gaal kese ndax kat loolee daal dina xam ne sax jamono googu moom bu doon jamono gis na gaal gu taxaw dina yóbbu ab njabootam kàddu yi la daal di yëkkati woon foofu waaye nag ginnaaw gee lool mën nañ ne sax ñi nga xam ne ñoo faroo foofu jamono googu ñu ko doon daal di dànkaafu moom ba léegi yoon daal diwul dellu yoon ginnaaw ci kàddu yi ba daal di xam ne lenn ci am jot na ak vocal bi nga xam ne ci whatsapp mën nañ ne am na kenn ku ko daal di envoyé ngir kat xam ni ñenn ci policiers yi takk der yi dañuy daal di samp ci li dem dem bi nga xam ni mooy dem ñi nga xam ne ñooy dem ci waax gi loolee sax tax na mu daal di xamle bu baax a baax samp googule da ngay def fexeel daal di joxe ab xaalis mu nekk mbir bi nga xam ne lu daal di ñaaw ci déggin la ba ñenn ci askanu Sénégal daan xamle bu baax kader mi war nañ ko woo daal di koy déglu ginnaaw bay loola nag convocation bis ni tey waroon na dem daal dem wuy ji foofee nga xam nga xam moo moo di chroniqueur bi la di wuyu tudd jàppee jamono gu ñu toll ni diffusion de fausses nouvelles incitation à la haine discrédit sur les institutions entre et autres mu nekk ay yi nga xam ni jamono guñ toll nii commencé nañ ko di toppee kader yi nga xam ni moo ci gën a siw nekk nag yii ñu leen daal di limal waaye ci loolee mu nekk mbir yi nga xam ne lu daal di yéeme la kon léegi ni suba moom kader dina jàkkaarloo ki nga xam ne moo di procureur ngir kat boobu la mbir ñu doon di xool moom procureur yan décision ak lan la ci daal di jël ay daan ngir ko ci ki nga xam ne moo di chroniqueur des médias bi faroo fa fecce des